wallahi bi damay wax wax ba sëriñ Pape Malick waxoon ci kanamu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sall dafa waxoon ni xam naa ni du teggin sax kilifa yi toog ma yëkkati kaddu waaye sëriñ bi maa ngi lay ñaan ci seen ndigal rek ma yëkkati ay kaddu tabaarakallaahu ndax ñi nga xamante ni ñoo organiser bis bi seen cofeel ci yow am na tàmbali waaye amul fu mu am ndax fekke naa keroog bi ñuy def avant premier bi cofeel gi nu am ci sa wéyjur sëriñ Abdoul Aziz Al Amin dafa jéggi dayoo ndax ndax olof dafa léeb ni mbër kala jàggi ruur te sëriñ Abdou ni mu nu def moo raw jàggi ruur ndax daf noo wan nu gis ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla jox këram ca aljanna ci barke yonent bi ku ne amin yàlla nga ci bokk te mu yéex lool te nu yàgg fi waaye si Malick yow ñun ñoo la choisiral sunu bopp li may wax nag daayira bi yëpp laa koy waxal sëriñ bi ñu la parce que doomi sëriñ Abdoul Aziz Al amin nga déedéet choisir choisiruñu la parce que sëtu Seydi Aboubacar si nga déedéet choisiruñu la parce que sëtu Seydi El Hadji Malick nga dañ laa choisir ndax sa personnalité sëriñ bi dañ la choisir xool la ndax nag duñu ay dof dama wax ni sëriñ bi ñett dafa daje ci man mooy damay géwél bu ndaw yaroo kër sëriñ ba pare rax ceddo kenn mënuma nax lii may wax nag du man maa ngi yéen a ko bokk natt nañ kër Sidi Hadj Malick ba xam ni yaay sunu sëriñ ñu ni la yaay sunu sëriñ te dëgg la ci ñun kon yàlla nga fi yàgg te wér da ko confirmer démb ci conférence su Abdou Kouré leçon yi ñu fa jëlee ba ñu delloo dañoo xam ndekete ñun ñu ngi woon biir Tiwaawan mais xamuñu Tiwaawan gi ñu nekk sëriñ bi yàlla la yàlla fay ndax taal nga làmp yi xam nañ ni ñun yoon waru jëloon ndekete baaxul te nag ci sa baay laa dégge woon mu wax ni Tiwaawan du ànd ak ki la neex ngeen di def li leen neex mooy dangay àndal kanu la booleel ngeen def lañu leen sant si yaa ngi ci li Abdou Kouré wax démb ni da làqatu te li ko waral yépp mooy jox cër sa ay mag sëriñ bi li tax ñu bëgg la ñun mooy dañu gis ni fa sa bàyyi sëriñ Abdoul Aziz Al Amin nekkoon fa nga teg sa tànk mooy daraja zéro nga ci bëggul daraja joo am ci sa bopp jox nga ko sa ay mag te noonu la sa baay nekke woon tarbiyu sa ay frère tarbiyu sa ay baay ñu lay yónni guddeeg bëccëg suba ngoon kon bépp cër bu sëriñ Abdou am ci tariixa bi am ko ci kër gi yàlla nga ko am ci barke yonent bi sëriñ bi kaddu yi du gudd ndax ñëpp boo defoon dànk sax jéppi nañ ma ndax yow dong la ñuy déglu seen naa fi sama mbokki waa kër Mouhamadou Diagne si mbeng yi ñoo ngi nii Pape Talla Dieye sa doomu bàyyi ñëw ak sama oustaz Diagne si mbeng di nit ku baax lu ay xewlu mu fekk la fa dégg naa bi may dugg si ñu annoncé Demba jub si boroom Sabador bi waaye Abdoulaye Ndiaye ngal gu taalibe sëriñ Abdoul Aziz Al Amin dafa yónni Makhtar Diouf Abdou Sall le coordonnateur Abdoulaye Ndiaye Ngalgou nag dafa wax ni bu ñu ñëwee nanu la wax ni la na ngeen xamal Sidi ni ko sama doomu baay la te sëriñ bi yaa sëriñ Abdoulaye Ndiaye gu mooy sama leader yow laa waxtaanalu nga ni ma Abdoulaye Ndiaye Ngalgou danoo bokk nday ak baay moo ma jox enveloppe bi beneen enveloppe bi Makhtar Diouf moo ma ko jox ndax nee na ñi nga xamante ni ñooy def organisation bi ay rakkam lañu kon sëriñ bi kaddu yooyu laa doon dawal di jéggalu nag ci tarde bi waaye sëriñ bi toog mooy sëtu Abdoulaye Walimatu Xuma borom de ndekk gi ci jaxaaw waaw benn waaye dafa wax ne ab sëriñ day rax ceddoo ab sëriñ bu raxul ceddoo boo ko xuppee mu daw boo ko laajee masala mu gàkk boo ko lebalee du la fay ma Maba joxu Ba dañ ko wax ni ko am na jigéen ju tudd Salbe dafa ëmb ay xalifa cheikh mu woo benn rakkam bu ñuy wax Abdoulaye Wulimatu Xumba ni ko xam naa ne bu ma demee ci xare bi falaaj des waaye bu ma demee ci xare bi na ko jël ma ba dem ci xare bi daanu Abdoulaye Wulimatu Xumba nekk ci xare bi di di jiin fasam wa rek ba nu jam ko mu daanu raam dugg ca ñag ba def fa ñetti fan lekkul naanu benn pël di sàmm ba dégg luy onk ci ñag bi mu yër muy nit mu jël ko def ko ci saritam yóbbu këram faj ba mu wér Abdoulaye Wundu xel la dellu si ci kër gi ne ana salbe ñu wan ko ko mu jël salbe am ci jigéen ju ñuy wax maaram ba ñu jël maaram ba jox ko Abdoulaye sëriñ Abdou Hamid kan moo am ci soxnaas kon ñu jox ko Seydi Aboubacar si radiyallahu taala anhu borom bonekaar waaye fi taxu leen waay ñu jël soxna sukkan dénk ko Seydi Aboubacar si mu jur ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum ma ca roq ba keroog ba mu nekkee xalif général des Tidiane dama ne way wa tàmbali na waaye keroog ba mu fekkee mag ñi nag ñu jox ko Serigne Abdoul Aziz Al Amin mu am ñetti cër mu am garaat bi mu jëlee ci Cheikh Hadji Abdoul Aziz bu takkal ko ni ko yaay sama secrétaire mu am beneen garaat ci Seydou Mouhamadou Mansour borom mu ni ko yaay sama porte parole mu dem ci Seydou Mouhamadou Mansour mu ni ko yaay sama secrétaire ak bi mu jëlee ci Serigne Cheikh ni ko bu ma doon am taalibe benn lay doon mu yow Abdou ñeenteel bi nag mooy keroog bi Serigne Abdou nekkee xalif général de Tidiane Serigne bi ma ni c'est le général de la situation situation yëpp Serigne Abdou koy décanté alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV jërë ngeen jëf. nu nuyu sunu mbokk bopp alxaaji Mbégi Diop xaaji Mbégi tabaarakallaahu bi nuy ànd nii ko sunu yaay ji waxee man ak moom ak alaaji Ousmane ak sunu borom sikkim bu gudd ba Pape Diop waaw booba ñu ko daan tuddee waddu waaw alxaaji Mbeng Diop bëggoon naa sax bu ñëwee mu firi lan moo tax ñu daan ko tuddee waddu waaw waaye ci loolu noo daan tëbëg di wàcc ak di yéeg ci miir yeeg dagg màngook ak sunu beneen turandoo baay di Abdoul Aziz Mbuub Abdoul Aziz Mbuub damay fàttaliku bés quartier bii ngeen toog dama amoon ay garabi màngo bari woon lool sax Tiwaawan léegi la yàqu rek waaye bu njëkk boo bëggee lekk màngo sax loowul ngay dem ci marché bi di jënd da ngay doxantu ba ci ba ba génn tuuti rek garabi mango yi dañoo rangoon mango bu la gën a neex sa moroom nga ni bii la moo tax Serigne Cheikh daan na wax ni doomu Tiwaawan rek a mën a lekk mango mu ni boo xoolee doomu Tiwaawan muy lekk mango ak kudul doomu Tiwaawan faw nga xàmmee leen mu ni ndax doomu Tiwaawan moo mën a log mango ci lex bi log beneen mango ci lex bii di wax soxlaam te dara du taq waaw waaw moom rekk it moo mën a lekk màngo bu rëy rëy rëy lekk ba mu jeex te baaraamam du ci taq soo ko joxoon ku dëkkul Tiwaawan buy lekk léegi nga gis fu ne ndox jaar fa loolu moom la fi yàlla def may fàttaliku nag Abdou Aziz Mbuub dañoo ànd di sàcc màngo nu ñëw ba fii ndeysaan ñu ñu ñu nekk ci suuf moom mu yéeg ci kaw di dagg màngo yi di ñu tëmbalal ñuy lekk moom mu nekk ci kaw di lekk di waxtaan di lekk di waxtaan di way ba mu yàgg ñu seen boroom tool bi di ñëw naka ñu seen boroom tool bi di ñëw ñun ñu daw te waxuñu ko ni boroom tool baa ngi fi muy lekk di def ni picc yi def mango bu mu sex mu naqari mu sànni ci suuf bu ci neex muy mu lekk borom tool bi moom toog ci suuf rek di ko xaar waaw ndax liñ daan sàcc bu dul raw jarul yàqi nelaw ndeysaan mu toog toog toog toog jékki-jékki a jékki ah, jot nag mu wàcc rek waa ji ni ko niip waaye bi mu koy saraxu di ko baalu waa ji bu gestoo xool li mu yàq ci màngo ji ci suuf dafa ko naan yow il faut ma door la waaw ah tabaarakallaahu mu mel ni koñ bii ngeen tuddee samsam sam am nañ fi ay fàttaliku ñu jóge fi tabaarakallaahu ba tey mu nekk dëkk dëkkuwaay bu mucc ayib tey tiwaawan ku ne fii nga bëgg a dëkk ndax nag mag ñi dañ ko ñaanoon wax naa leen ni leen li ko dalee fii ci côté penku dëkku bi ñuy wax Tiwaawan ku fi yàlla may kër booy boo nga xam ne am nga chance waaw féete Tiwaawan penku moo gën féete ko sowu moo tax ñi dëkk fii nañ ko fonk nañ ko sàmm ñi dëkkee ci côté bii nañu koy bale nañu koy nettoyer bu leen ko municipalité bi defalul sax jël leen seen Pastef ngeen di bale di nettoyer fii ndax Seydil Hadji Malick dafa joxoñ fii wax ni barke bu yàlla di indi ci Tiwaawan na tàmbalee fii